فتبارك الله احسن الخالقين بوكو ديفي ريك مبوكي دي مبوكي جوليتي ويرو كور دي ويرو باركيل وي ميغي ني ريك دي ميل ني مو ملتي di nuy mas di melawoo weeru njëggal yërmande sunu boroom ak jot gi nga xam ni sunu boroom dana ko jotee jaamam yu goreel leen ca safara yépp ci biir fan yu barkeel yi ñuy jànkonteel ci weeru koor mu mel ni nag ni fanam yaa ngi dem fan yaangi dem ñu toll ci fan yu mujjii nga xam ni ci la ñu ëpp ci borom xam-xam yi wax ni fi la ñuy seete laylatul qadr الله ahsanul الخالقين ko defee rek nañu ko fi waxe woon ni bokk na ci lañuy ñuy génnee njukkal yi fan yi yonent bi moo wax ni weeru koor fanweeri fan yi mu ni fukki fan yu jëkk yi yirmande sunu borom la ci jaamam yi subhanahu wa taala ñu waxon ni kon de war nañ ci genn njukkal ñu nit delloo ko sunu borom subhanahu wa taala ci jaamam yi war nañ ci yëg yërëmante goo xam ne kenn ku nekk di ko ameel sa moroom ci fukki fan yu jëkk yu ñu génnee ko njukkal ci yërmande ji ñu sunu boroom bëtu yërmande boobu mu ñuy xool su ko defee ñu yërëmante ci fukki fan yi ci digg bi te mooy fa ñu amee fukki fan jëm ñaar fukki fan foofa yépp ku woor ba foofa desatoo set nga wecc ci bàkkaar njëgg lu tol it ku ko am ci sa boroom subhaanahu wa mu jéggal ko yow mën a jéggal képp koo xam ne amee loon na nga seedaloo ko yàlla delloo ko ko njukkal kon fukki fan yu jëkk ya yërëmante ci sunu biir la gannaaw ba ñu seddoo ci ku ne ci ñun yàlla teg la bëtu yërmandeem fukki fan yi ci digg bi jéggaleente àq yi ndax lu toll ni njéggal ku ko sunu borom defal mu tukkee ci moom ñëw ci yow yow it war ngaa mën a jéggal bépp jaamam boo xam ne ameel na la àq nga yëg ko ko nga ñàkk koo yëg muy njukkal lañ ca war a génne fukki fan yi mujj yii nag te mooy fan yi ñu tollool moom nekk di fan yi ndokkeelante ndax ci la yàlla di gore la jaamam yi ko wooral yépp ba fii ca safara ñépp aljanna la ñu jëm ci ñu ko wooral te lu tol noonu ku ko am ci sa boroom sa moroom am ko ci moom ngeen ñépp ngeen àndandoo di jaami yàlla ku taseeg sa moroom mbaa nga janoog sa moroom ni ko ndokkale mu ne la ndokkale su ko defee rek ñu xamee ko noonu sante ko nag yàlla subhaanahu wa taala buur bi di boroom mi nga xam ni mbaaxam ak yërmandeem ak i ñeewanteem rekk la nu yéeneel boppam ñu fexe nag ba melowoo melowoo <clears throat> wu muy gisee ci ñun ni sant nañu loolu gërëm nañu loolu gannaaw buñ ko yitteewu ñu waxoon ni bokk na ciy ngëneel yi moom weeru koor di fanam yi ñu barkeel yàlla dana jéggal ñi woor ñépp bàkkaar boo xam ne amoon nañ ko ba dañuy mel ni keroog ba ñu ganee àdduna ci seete ko ni wecc ciy bàkkaar yàlla tamit defal nu ci xéewalu جل قدي كي نحمني جعنا جوني قدي تمو ليلة القدر مدف كتي بيرو فتبارك الله أصن الخالقين ماتخ عليه الصلاة والسلام وحني فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل عليه السلام fa yahbitu fi kabkabatin min almalaikati ila al ardi mu ne bu gudduk laylatul qadr jotee te moom la ñuy séentu di ko yaakaar ci guddik ñaar fukki fan juróom ñaareel ji nee na yàlla subhaanahu wa dina ciy digal jibrilu alayhi salaam ci mu wàccee ci kaw suuf àndee kook nag cortège di boo xam ni ay malaayika yu bari lañuy doon nee na ñu dar jibrilu nag boole kook yi coow wa maahu ci guddi googu wa maahu liwaa'ul xadar liwaa'ul axdar fa yurakkizuhu ala dahril kaaba mu ni jibril nag buy wàcc ànd ak malaaka yooyu nañ koy dare <clears throat> ak ya ñuy wax ci tudd yàlla ak ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy ñaan du ko jëme ci xeetu yonent bi wooroon nee na jibril la ngay yor benn drapeau bu vert nee su ko defee nag mu daal di koy samp ca kaw kaaba ga te mu ne jibril ci boppam nag walahu sittu mi ati janaaxin nee am na juróom benn téeméeri laaf di yoo xam ni neena laaf yooyu yépp nag minha janaaxaani laa yanshuruhuma fi laylatil qadri am na ca ñaari laaf yoo xam ni du leen firi lu dul ni guddik laylatul qadri ñëw na su ko defee nag ci guddi googu nag di guddik laylatul qadar nee na fa yanshuruhuma tilkal layla mu daldi leen firi nag ci guddi googule di guddik laylatul qadar bu leen firee nag ñaari laafam yooyu le fa yu jaawisaani al mashriqa wal maghriba ñu daldi di nag ubale ñaari lafam yoy yep nak wër penku ba soow nee su ko defé fa yab'ath jibril al malaikata fi hadhihi al umma fa yusallimuuna ala kulli qaimin wa qaaidin su ko defee nag jibrilu alayhi salaam daal yabal nag ci malaayika yooyu mu àndal nag wàcc ñuy wër nag di nuyoonteeg ay saafanteek képp koo xam ni fekk nañu la nga taxaw di jaamu yàlla wala nga toog di jaamu yàlla te mooy nga di ko tudd walla ngay julli ko sallin mu ngoog ak képp koo xam ne fekk na la ngay julli di def say naafila wa zakirin ak képp koo xam ne fekk na la ngay zikkar wa yusaafixuunahum nee na malaayika nag di la nuyu ba noppi nag di saafonteeg yow ba noppi nag nekk sa wéttal toog ci sa wet wa yu ambinuuna ala duaihim ñu toogandoog yow nag loo ñaan yàlla ñu naan amiin loo ñaan yàlla ñu naan amiin te amiinu malaayika incha allahu taala yàlla du delloo ñaan googule noonu la ñuy jàppook yow xata yatlu al fajr nee na ba ba fajar di xar noonu la malaayika yi di jàppook yow waaye fa ida tala al fajr nee na bu fajar ja feqe nag naadaa jibrilu alayhi salaam nee na jibril ma leen jiite woon ànd ak ñoom wàcc nag dafay daal di woote لن لي وح لي وح جكونا يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل يين بولي ملائكة مو خمني أندون ناك يا وچ جوتنا چينيو دلو ننجلين دلو لأن فيقول فيقولون ملائكة يا daldi di waxoon nu ko yaa jibril yow yow jibril ñu jiite woon ñu wàcc ci ci kaw suuf waaw nee nga ñu dellu waaye nag bala ñoo dellu maa sanaa allahu fi xawaaijil muminina min ummati muhammadin sallallahu alayhi wa du ñu mën a dellu kat noonu te bu ñu sañoon daañu xam balañoo ñoo dellu aajoy ñi gëm ñi seen boroom ci xeetu soppeem bii di muhammad sallallahu alayhi wa nu yàllay def ak aajo yooyu fa yaquul <clears throat> nee na jibril alayhi salaam tontu ni inna allaha taala nadara ilayhim yàlla xool na leen teg wa afa anhum jéggal na leen bàkkaar yépp ak tooñ yaag lépp lu ñu defoon te ca wa xafara lahum may na leen tamit jàmm fa tabaarakallah asnul xaaliqiina waaye nag illaa arbaata nee na ñeent daal nee na bokkuñu ca ñeent daal wala iyaazu billah bokkuñu te cee nañ ci musal ba faw nee na ñu ni ko waman haula il arbaa ñeent ñooñu ñan lañu qaala alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ni ko ca jiitu ci ñeent ñooñu e, mudminu xamrin naankatu sàngara du ca bokk waliyaazu billah ku ñaareel ka waaqul walidayhi nee na képp koo xam ni say wayjur bégguñu ci yow duñ ca bokk waliyaazu billah koo xam ni dafa moy ay wayjuram dëngee leen wayjuram bégguñu ci moom duñ ca kooku du ca bokk waliyaazu billah ku ñetteel ka mooy kan wa qaatiu rahimi koo xam ni dafa dog ak mbokkam xajamal ko du ca bokk waliyaazu billah ku ñeenteel ko mu ne wa mushaahinun maanaam kuy ñaawal waaye ba mu ne wa mushaahinun qiila ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wa manil mushaahin ñu laaj ko ni ko al mushaahin di aji ñaawal jooju mooy kan qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne huwa al musaarimu ñu ni ko xamaguñ ko de mu ni alayhi salaatu wasalaam yaani alladi laa yukallimu axaahu fawqa thalathati ayaam nee na mooy ki tongoonteeg mbokkam moo xam dëkkandoom la moo xam mbokkam la moo xam lu mën doon ñoom daal ñu tongoonte duñu waxante lu ëpp ñetti fan nee na kooku laay wax ñoom ñaar ñëpp duñ ca bokk waliyaasu billah yal na yàlla musal ci loolu wel jaay sidna muhammad mu wax ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni fa ida kanat laylatul fitri nee na bu ñu ko ni àndee noonu nag fani weer wi ba ñu ni suba la ñuy wari nag neena na summiyat tilka laylatu laylatal jaaizati neena na guddi googu nag ñu tuddee ko guddik pay gi pay pay gi maanaam mel ni ku liggéey ba weer de ñu war laa fay nga xam ni nag ki la ñuy fayee nag muy guddik bégal ga jaami yàlla yi subhaanahu wa di ña doon sellal ña weeru koor وهي فإذا كانت غداة الفطر لأن بنيو ورينك أنا خمني قدقي موم جألك سلني أنا نانا ورا دم تجولي كايا جن كري دم بس بابو نغحل موي بسو كوريتي ونه الملائكة في كل البلاد yeneen ñu yebal nag ay malaayika yàlla leen di yebal yónnee leen nag ci mboolem ci kaw suuf yépp nee na bu ñu jotee ndigal loolu nag ñoom malaayika yi fa yahbituuna ilal ard ñu daldi di wàccandoo nag ci kaw suuf si fa yaqumuuna ala afwaahi sikkaki teg ca nag ci taxawandoo ci buntu mbedd yu xat yi nag di defandoo lan nee na fa yunaaduuna bi sawtin ñu ngay woote ci baat boo xam ni daal yasmauhu jamiu maa xalaqa allahu azza wa mboolem lu yàlla subhanahu wa bind di dégg wax ja illa al wal ins nit ak ginne rekk ñoo dul dégg su boobaa kàddu yooya di jibe ci malayka yi waaye lépp lu yàlla bind gannaaw nit ak jinne daañu ko dégg fa yaquluuna ñu ngay wax naan lu ñuy waxandoo ñépp di ko dégg ginnaaw nit ak jinne yaa ummata muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam uxruju ila rabbin karimin génn leen génn leen génn leen kër yi jëmee ko ci boroom di buur bi nga xam ni mooy aji dappetoo ji tabeem buur bu tabe bi di buur bi nga xam ni yutil jazila dafay maye tey lu bare baree bari kon génn leen te du ca yem ci maye lu bari waaye wa yaxfiru danba al azima lu bàkkaar rëy rëy rëy rëy rëy te it daf koy jéggale kon génn leen yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ndax dina am ren doy waar de doy na waar de kenn mësul gis li waaye yàlla subhaanahu wa taala ku mu musal nga mucc yàlla na nu boole musal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ni fa ida barazu ila musallahum nee na bu ñu génnee noona nag jëmee ko ca seen julleekaay ba di fa ñuy jullee ji bes boobu di besu korite yaqulu llahu jalla jalaluhu li malaikati neena foofu nag yàlla boromu mag dal di addu nag wax fa malaika ya ni leen yaa malaikati ma jazaul ajiri iza amila amalahu ki ñu sant mu jëf mbaa mu liggéey ba nama namu ko waxante woon ka ko doon liggéeyloo sotti ana luy doon di payu kookule fa yaqulul malaikatu nee na malaayika ya tontu ni ko ilaahana wa sayyidana jazaauhu an tuufiyahu ajrahu yow kii sunu buur di sunu boroom di sunu sang yoolu kooku dey li ñu ci xam mooy li nga ñu ci xamal rekk te mooy ah, doo wàññi dara ci yoolam dinga ko ko matalal fay ko ko ba fay ko sax ci anam goo xam ni mooy na nga toll rekk yow kon dana طيب av den ikke فيقول الله عز وجل يعني يالله سبحانه وتعالى تونتو لين نيلين إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم في صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضائي wa maghfirati maa ngi leen di seedeloo yéen samay malaayika yi ni sama jaam yi de def naa seenub yool ci woor gi ñu wooroon weer wi te mooy fani weer wi mu ne def naa seenub yool ci biir fani weer yooyu la ak taxawaay yañ ca daan jullee ya dinaa fi la ngir jege ma ko def naa yooyu yépp muy sama ngërëm ci ñoom te it doon na it di sama njéggal ci ñoom ñépp <clears throat> fa yaqulu llahu azza wa jalla nee na yàlla subhaanahu wa taala àddooti waxaat foofu ni yaa ibaadi ay yéen sama jaam ñi li ma leen defal tey nag jox leen ko ci samay ngërëm jox leen ko ci samay njëggal <clears throat> bu rëyee ci yéen it doyul ci man de ndax dafa yàlla day bég doyul ci man de te amaana su ma leen dollee it ba tey ngeen jël ginnaaw tey nag bésu mbégte la te bég naa ci yéen bëgg naa yéen it ngeen bég léegi daal saloon yi la ñaan leen ma laaj leen ma ndax duma jeexal ñaanaat leen ma ma mayaat leen te xam ne am naa ko mën naa ko te yéene na leen ko te duma koy wàññeekule waxuma ak di jeexle yii xéewal yu rëy fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiina weeru koor indil nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamalee ko noonu kon weeru koor bokk na ci itax tax mi yi suma santollu fii Moolaay Ahmed yàlla na ko yàlla fayal xeet bi sayidi wa mawlaaya di Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktuum radiyallahu anhu daan na wax ni maam sëñ Babacar si radiallahu taala anhu nee na fan yu koor suma santoll fii dafay def ca xolam tristesse da daan triste ak gan gàmmu yu gàmmu si woon doon màggal si gan ak àdduna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee bu mbooloo moomu dee ñibbi dafay triste ci moom ñaar yooyu dafay jur ci moom wéetaayu xol daan jur ci moom wéetaayu xol fan yi weeru koor yi jeex te mooy bu fan yi ma santoll fii dafa daan jur ci moom wéetaayu xol kon weeru koor a ngoog ànd kii fanam yu barkeel yi nga xam ni mi ngi mel ni nag mi ngi tàggu mi ngi mel ni mi ngi ñuy tàggu ak yi ci daje woon ci ay ngëneel ci ay njariñ fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqina nga xam ni bis bu jot ci weeru koor te mooy fanam yu barkeel yi waxoon nañ ko fi bu heure jot dog jotee ca waxtu woowa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure ndogu bu jot yàlla dana cay goreel junni junni di yoo xam ni tiimoon nañu seen kàmbi alkande mbugal mooy waroon ci ñoom ci ñoom yàlla wëlbatee leen ca ci barke kii ngëneel yi nga xam ni weer wi làmboo na leen yàlla subhanahu wa taala goreel ñépp ca safara nga xam ne dootuñu fa demeti waa aljanna la ñuy doon ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa bés bu jot ci fan yi weeru koor yàlla subhaanahu wa taala goreel ci waxtu ndogu bu lim bu toll noonu ay junni junni noonu la yonent bi waxe mu goreel leen ñoom ñépp ci yërmandeem ak mbaaxam ñu nekk di nitu aljanna وتحمو وحكو نون موم يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني ان الله تعالى في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار اعتق الف الف عتيق من النار تكت كلهم قد استوجبوا العذاب نيوني نيب دي فك مبوغل مو يالون تي نيوم مو ولبتي لين نيوم نيب ني دون اي نيتو الجنه لولو ci weeru koor lañ koy fekk neeti fa ida kaanat yowmul jumuati wa laylatul jumuati ataqa fi kulli saatin minha alf alfa atiqin min annaari maanaam waxtu wu jot ci bési weeru koor waxtu wu dogg bu ci jot rek junni junni lañ cay goreel di ñoo xam ni safara lañu naroon a dem bokkul ak aljuma bu jot ci weeru koor yàlla subhaanahu wa du xaar ba ndogu jot mu goreel ci junni junni yooyu le waaye waxtu wu jot rek ci guddi yeeg bëccëg yi ci bésu aljuma waxtu wu ñëw rek mu jukkeeti ci junni junni yu bokkul ak ya mu jukki woon de nee na goreel leen ba ña ca naroon dem safara ñépp mujj gi aljanna la ñu jëm lépp ci darajay weeru koor ak i barkeem yéppit ci darajay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama yonent bi wax ni waaye wa ida kaana fi axiri yawmin min shahri ramadan actaqa fi dalika al yawm bi adadi ma ataqa fi awali chahri ila axiri cey nag bu ñu demee nag ci kattanu yàlla subhanahu wa taala yàlla rekk baax ci kàttanam ñeewanteem ci jaamam mbaaxam ak yërmandeem bu ñu demee ba àgg nag ca bu mujj ci weeru koor nee nga xam ni bu ñu dogee rek ni suba la ñuy wari weer wi feeñ ñu ni suba la ñuy wari insha allahu taala mu ne yàlla foofu dana fa goreelaat ci bés boobule lim bu toll ni junni junni yamu doon goreer ya ca waxtu ndogu wu nekk boole koog junni junni yamu doon goreel ya ci waxtu wu jot ci ci aljumay weeru koor di ca bëccëg ya di ca guddi ya mu booleeti subhaanahu wa taala lim bu tollooti ni lim yooyu yëpp jukkeeti leen ca biir ña naroon a tabbi safara waliyaadu billah mu wëlbati ñépp goreel leen ñuy doon diini te aljanna ñu ànd fa ak ñoom fa tabaarakallah sunu xaalixiina di fa tabbee ji noonu ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa kon weeru koor kon ñu xam ni fanam yu barkeel yaa ngi ñuy tàggu ak yi ci aju yi ci am yëpp fa tabaarakallahu ñu xamee kon noonu déggee kon noonu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam yal na nu yàlla boole nangul bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa kon weeru koor ngoogu te mi ngi nii ànd ki mu àndal yëpp waaye mi ngi dem de mi ngi dem de te yonent bi alayhi salaatu wa waxoon na ni day sama xeet wi bu ñu xamoon di leen yàlla defal ci weeru kor kon day doon ko nanu ngéejoo doon ko nanu ngéejoo at mi yëpp doonoon di koor liñ ci yàlla defal ñun xeetu yonent bi ci weeru koor buñ ko xamoon kon day doon ko nanu ngéejoo at mi yëpp doon di koor fanam yi barkeel yi nag mu ngi jeex de mu ngi jeex de yal na yàlla subhaanahu wa taala nangul nu ci lépp luñ ko jaamu nangul nu ci tamit lépp luñ ko ñaan ba tax na ginnaaw weeru koor nag bu fanam yu barkeel yi jeexee sopp nañu woor juróom benn fan ci bu ñu woree sopp nañ ko tabaarakallaahu yiw ya bari na te ngëneel ya it bari na ci ku ko mën mu def ko bisu arafa képp koo xam ne ajiwul mak sopp nañu ñu woor ko bisu tamxarit it ak bisu nisfu chaabaan yooyu yëpp sopp nañu woor leen fa tabaarakallah asnul xaaliqina bu ko defee rekk ngir mottali ak daj waxtaan wi rekk ñu xam ni nëbbuwul ci kenn njariñ li nga xam ni or am na ko ci njariñi yaram ànd ak nekk gu mu nekk di jaamu yàlla subhaanahu wa bu kawe nag te gën a màgg bokk ci jaamu yi nga xam ni ñoo gën a màgg ci jaamu yi tabaarakallaa ahsanul xaaliqiina docteur yi bind nañu ak ñi amok jagle ci wàllu faj bind nañuy njariñ yu baree baree bari yuy jóge ci koor jëm ci wér gi yaram laaye nañu biir ñu bari ci ñoo xam ni amoon nañuy feebar ak yaram bu jagadi ci ñuy woor loolu boo seetloo tëririn yenn yi loola daf cay feeñ ñu jële ko ci misaalum léebu mu yéeme muy wax ni mbaq daal mbaq di mbaqu doomu aadama mooy biiru feebar yépp waaye aartu ci lekk ak néewal ko nag nee mooy boppu garab yiy faj yépp su ko defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax lu ni mel ci baat bu gàtt suumu tasixu wóor leen wir bu ngeen bëggee wir wóor weeru koor nag guddi gune fa tabaarakallah sunu xaalixi naak ngënee lii boppam fa tabaarakallah sunu xaalixi na ba diiru fan yi weer wi jeex yépp ànd ak ngënee lii boppam bokk na ci ngënee lii weeru koor ak ay guddeem wax bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni booy seet téere asamaan yépp ci weeru koor lañu wàcce téere yonent yàlla ibrahima alayhi salaam mu ngi wàcce ci guddi gi jëkk ci weeru koor tawraat mu ngi wàcce ci juróom benneelu guddi ci weeru koor zabur bu yonent yàlla daawud mu ngi wàcc ci fukkeelu guddeeg ñaar ci weeru koor linjiil mi ngi wàcc ci fukkeelu guddeeg juróom ñett ci weeru koor al quraanul karim mi ngi wàcc ci guddik ñaar ak juróom ñaar ñaar fukkeelu guddeeg juróom ñaar ci weeru koor kon téere yépp ñu ngi wàcc ci weer wu tedd wu màgg bii di weeru koor di téere ya ñu joxoon yonent ya ba ci téere bi nga xam ni moo dajala yewante woon ñoom yépp muy alquranul karim yal na yàlla subhaanahu wa taala may nu jariñoo ngëneel yi nga xam ni ñoom la weeru koor làmboo bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama bu ko defee rek bu ñu mënee jokkoo tuuti ak suñu technicien mu ubbil ñu jombul am na ñu bëgg a dugg wàll si ci waxtaan wi incha allah ci 88 628 10 95. waaleykum salaam sëñ As. la As. waay wadd wadd wadd ñu ngi lay delloo ziar yàlla yàlla nangul lu wadd léegi la ma Mansour dem woo ndeysaan حج منصور والله ديسان واتنا سانك بيجي والله والله والله والله ورد سن سنياي تمي مولني وباخ والله ديسان والله مو دف سي سي امون nga dolli ko ñaan rek والله والله والله ñu ñi yaakar ñaanam de ان شاء الله يلا يلا سبحانه وتعالى فغل نو بوك وانا ني لول واخ ما شاء الله ما تلنا الحمد لله ورد الحمد لله ورد يلا موم يلا دسيو تمي سبحانه وتعالى والله ñu nek ñu ci dess wa parce que wer ko mom waaw waaw ku yàlla may nga dund benn ba den ba fekkee ko waaw waaw ah boo sàgganee nag ba lim ci wax yëpp mu dalul sa kaw waaw ah a day waar nag ca dëgg dëgg wallaay wallaay wadd wallaay waa ak ñu ci tooñ lañ dëkk mhm. mu indi koor mhm. ne bu ngeen wooree fukki fan njëkk yi weer yërmande la. wallaahi wallaahi. ngeen wooraat ma ma jéggal leen seen. bàkkaar yëpp seen i bàkkaar. wallaahi ba noppi nag dig ñu fam ñu dig nga xam ne moom lépp ku nekk ba ngay boy dund loolu ngay loolu ngay ñaan. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw loolu nag boo sàgganee ba wax dëgg yàlla bokkoo ci. ah nga xaw a doy waar. ca dëgg dëgg. wallaahi wallaahi wallaahi. dëgg yàlla daal yàlla desal duñu dara de wax dëgg yàlla. amiin bi yaay Seydina Muhammadin alayhi salaatu wa salaam. rafet na macha allah. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaay wax dëgg jërëjëf As jërëjëf As ñu ngi bég ci ñaan yi te di la delloo kami ñaan yi. jërëjëf ñu ñaan fi toll wallaay. wallaay di la jël Thierno it mi ngi lay ñaanal foo toll yow it. wootee laaj ko mi ngi nii tabarakallahu fas ñoo yéene fàttali ci laylatul qadr ji nag ay laaye biir. wallaay incha lay nuyu lu bëree bëree bëri moom it. wallaay jotal ko suñu cofeel ak yëpp ma jotalul ñu ko. wallaay wallaay barakallahu wadd est sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu. jaama ngay jaamu. fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin jërëjëf Hadji Aswad ñoo dëkk ca Santanaak bés bu jot mu laaj ma la. di feeñal mbégteem fu ñu toll ci sunu jotaay ak daara ji xaaji e Mansour damit woote tabaarakallahu talaata ju jot moom it mu woote xel ma yépp it mu ngi fii di ñaan yàlla subhaanahu wa taala delloo su koog jàmm ni nga ko koy ñaanale di la nuyu di la ziyaar imaam xaaji Cerno Hamid Yero Ousmane Baan fa tabaarakallahu sunul xaaliqiina di àndateeg mbégteeg xel mu dal nag ci tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina toogaa toogaat ak yow nag gën fee rawati fii waxtu yu tollook ñun ñu toll ci fan yi mujj nag ci weeru koor nga xam ni werante yi bari na ci waaye li ëpp ëpp ci boroom xam-xam yi day joxañ nañu ni mu ngi ci fukki fan yu mujj yi ci biir fan yi weeru koor yi nga xam ne ci la ñuy fanam yi barkeel yi di tàggoo waaw allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. imaam Moussa Gueye. waaw. Abdoul Aziz Dabakh Diouk. Abdoul Aziz Dabakh Diouk askay Diouk. Diouk Diouk. hakay Diouk. bu Pikine tali bu bees. hakay barakallahu barakallahu. daan naa la faral di woo lu bari. dëgg la dëgg la. daan déggoo ma di la laaj ci yenn saay ci ay masala dëgg la ndeysaan. léeg-léeg sa oyofaay sax nga boole ma ak Mouhamed. dëgg la ndeysaan. RTS. ah kay. ma ne la yow sa tontu bi doy na ma sëkk ak barke. ah kay ndeysaan. maa ngi lay ziar lu bëree bëree bëri. ñu ngi lay delloo ziar yal na yàlla boole nangul ma. gis nañoo déggante yàgg na naam. wallaay wallaay wallaay Seydi Abdoul xol bi bu suul jóg ci yow. wallaay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay ziar lu bëree bëree ñu ngi leen di delloo ziar yal yàlla nangu nu bi yaay Seydi. jërëjëf barakallahu fiik jërëjëf. di la delloo yeesal sunu kóllëre. wallaay ñu ngi koy nangu yal nu ko yàlla nangul bi jaay Seydi. amiin bi jaay Muhammadin. ñu ngi sunu nuyoo ci sa doom Moustapha. Moustapha dëgg la wallaay ndeysaan waaw waaw amiin yàlla boole nu ko amiin allahumma amiin bi jaay sidna Muhammad yàlla màggal ko te dëgëral ko amiin bi jaay sidna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin lu bari di la delluwaat ci li mu waxoon léegi rek wallaay di la xamal ne la carrément may nan la nopp yàgg na booba ca duniyaa la woon yàgg na wallaay dëgg la ak fépp foo jaar ba yegg si fii nga nekk nii ndeysaan wallaay wallaay imaam Cerno Yeero Hamidou Baan wallaay wallaay ndeysaan mi ngi lay dégg bu baax tànkam amiin yaa rabbal alamin rajo bi mu yëkkati ko ba mu kawee kawee kawee. amiin bi jaahi sidna Muhammad. séntu ci màgg yàlla na fa yegg. amiin bi jaahi sidna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. allahumma amiin bi jaahi sidna Muhammad. ne la rek noo ngi lay bàyyi xel di la déglu. ah jërëjëf Sidi Abdoul Aziz. yàlla lu bare bare bare bare bare. baarakallahu fiik jërëjëf. Euh, nuyu bu baax imaam Abdoul Aziz Fall. Abdoul Aziz wallaay ndeysaan. sunu soppe. ndeysaan wallaay wallaay wallaay. di nuyuwaale Chérif Cheikh Ahmed Tidiane. Sané Aidara bu Ouest Foire. waaw waaw waaw waaw ndeysaan sunu soppe. mujjee gisee. wallaay ndeysaan. am na benn benn qualité boo xamante ni. invité woon na ma foofu Safina nekk. ndeysaan waaw waaw. jotaay woon nañu foofu maag yow ak chérif yu bari yu fa nekkoon. wax nga dëgg fii ci Scarlet Bam. Thierno Hamidou Yoroban. wallaay wax nga dëgg wax nga dëgg. bu Thierno Hamidou Yoroban joxe woon uh, numéro téléphone am. Mm-hmm. ci jotaay boobu ñu jotaay woon doon ci traité mbirum islam. Mhm. xamante ni moom diine rek moo ko intéressé wax dëgg yàlla. parce que wallaay wallaay. ay maak moom ci kër Chérif. Mhm. Cheikh Tidiane Aïdara ca Ouest Foire. dëgg la ndeysaan. yal na yàlla yàggal ko fi. amin bi jaahi sidna Muhammad amin amin bi jaahi sidna sa barke xasida bi jaamoo jaama ngay way borom. ndeysaan amin fi mbas mi fi wàcc. amin yaa rabbal alamin ndeysaan ci Sénégal jële ko fi ci dénd suuf si yëpp. amin yaa rabbal alamin ku yóbbu ko foo xamante ni dootul wàcc ci suuf benn doomu aadama waxuma la ak ab bi ñu nekk nii. Mm-hmm. yàlla nañu ko yàlla defal. allahumma amin di jaay si. tiis la. wallaay doy waar la lu wàcc ci kaw suuf. muy balaa wallaay wallaay wallaay ndeysaan. di delluwaat ci yàlla jot na. wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan wàcc ci moom rek sukk daal di tuub wallaay wallaay ndeysaan wax naan sukk naa los gombaanu <laughs> <laughs> est-ce que amiin yaa rab tuub mu jëleel ñu fi lii fi nekk nii amiin bi jaahi sayyidina Muhammad bi di leen baalu àq di leen baalu àq. bala leen yàlla na yàlla boole ma ñëpp jéggal. amiin bi jaay Seydina Mouhamed. bu ñu leen fàtte ñaan ñun du leen fàtte. bu ñu fàttente incha allah kenn du fàtte sa bopp jërëjëf. soxte bu baax bi. jërëjëf Hadj Abdoul Aziz. loolu te yàlla rek moo tax ñu def ko. tabaarakallah yal nañu ko yàlla nangul joo. jërëjëf imam jërëjëf. baarakallahu fiik jërëjëf kontaan nañu jërëjëf. waa ji rafet na jërëjëf Hadj Abdoul Aziz. baarakallahu yal yàlla boole nangul nu sunuy ñaan ak sunuy jaamu kook lépp te musal nu ba fawit ci corona virus bi wàcceel génneel nu ko ci àdduna bi bi jaahi seydina muhammadin alayhi salaatu wassalaam e, bu ko defee rek xanaa ñu dalal sunu kilifa gu tedd gi di imam xaaji Cerno ci fii waxtu yu tollook ñun tey te xam ni fan yu koor gaa ngi dem ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi te am na lu ci jot a dem ñu ngi dëkk ma laylatul qadr fa tabaarakallah sunu xaalifee na bu ko defee rek cer nañu jox la kàddu gi incha allahu taala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu cheikh alxaaj imam Moussa Gueye yow ak mboolem ñi déglu seeni émission bu am solo bi di dëkkandoo jàmm ci gën di nuyuwaale mboolem soppe yi nga xam ne mm-hmm. ñoom la doon bokk ci plateau bi di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niang mm-hmm. ak Cheikh El Hadj Abdoulahi di ziyaara ñëpp mm-hmm. di ndokkeel ñëpp di baalu àq di sant di gërëm Abdoulahi Diouf mi woote léegi fàttali lu bari te mu di la suivre lu yàgg feeñ na ci waxam di nuyu bu baax a baax a baax suñu mm-hmm. soppe mm-hmm. Cheikh Ahmad Tidiane Haydara mi mu wax tudd léegi di ko ziyaara mm-hmm. barki dëmb rek man ak moom jokkoon nañu téléphone lu yàgg yàgg yàgg euh, incha allahu li ñu defoon dañu koy سوكالات ان شاء الله موي الاخوه الاسلاميه نخ تي تي جي جامانو جي اديو نكو دغ لا موي فراترنتي مسلمان نخ الحمد لله رب العالمين جامانو جي تي جاخاسونا سي دو باري باري باري دغ لا تي نياكا خام ولا نياكا ام اورما wala ñàkk a teggin wala ñàkk a yar kaddoom wala ñàkk a xam doxulinam ci biir diineem ndax al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi tey tey jii réseaux sociaux yi baax na gaa wante alhamdulilahi rabbil alamin am na nu mu demee soo ko seetaanee rek wala soo ko déglu sa xol jeex rajo yi ak télévision yi baax nañu ga wante léeg-léeg am na ñi nga xam ne ñu ngi ci dugg wala ñu ngi leen di intervenir ñu ñëw ñu invité leen wala ñi nga xam ne dañooy anime émission yi léegi léeg ñu saaraan saaraan nag baaxul ci oto rawatina nit euh, incha allahu dañu koy labbaliwaat incha allahu ñu yeesalaat ko mm-hmm. ndax bi ñu ko tàmbalewul mm-hmm. boobu jamono kilifa yu mag yëpp macha allah gisoon nañu leen mm-hmm. ñu jox ci ndigal def ci ñaan uh, nun nag ñoo taxawaloon mais nag taxaw googu uh, baax na wante jogaat encore baax na ndax am na ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a oyof te mun a sol seen dàll di gën ñawaat mm-hmm. li nga xam ne ak ay wëñam commencé na rapp mm-hmm. rappul ga wante ñawaat moom mm-hmm. day baax rek dëgg euh, loolu incha allahu danañ ko su koor gi jeexee incha allahu cheikh la ji maam danañ la woo ñu def ci gëstu bu baax a baax a baax ak fan lañuy jaar ba ndox mi jaaraat fi mu doon jaar ndax Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar kenn mënu ko xar ñaar soo yóbboo rek na nga yéene fii jàmm ndax Cheikh Umar radiallahu taala anhu daanaka moom mooy mbaar bu mag bi mbaar bu sëdd mhm. mbaar bu yaatu mhm. mboolem ñii woote fii jëm ci yàlla yàlla wuyu dugg nañ ci biir mbaara mi duggin bu rafet ñoom ñépp ñoo bokk ndey bokkoo baay ndax bokk jëmukaay cheikh si Hadj Malick cheikh Ahmadou Bamba cheikh Abdoulaye Niass cheikh al ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba bés njëkk tey mhm. li nekkoon démb loolu moo fi nekk ba faw mais léegi-léegi nag su kër yaatoo njaboot bari mm-hmm. day am ñi nga xam ne ay njaboot ñi nga xam ne dañuy bari jooy dañuy bari ay benk-ñenk mm-hmm. su booba ñu jox leen tàngal rek ñu noppi loolu moo gën wala ñu jox leen tàngal rek ñëw changé mm-hmm. benk-ñenk yi loolu day arrivé ci kër yu bari incha allah lu si des nag émission bii foo ko natt rek mu ngi foofu ndax dëkkandoo jàmm ci gën waxoon naa fi émission bi mhm. daanaka mooy ndey émission yi euh, même fii mhm. rajo bi mhm. ak madame la directrice Hadja Ñuma Ba ñoo dëkk kon nag jàmm ci gën mooy mu xool matériel rajoom lu ci bëgg a yàqu rek mhm. mu defaraat su booba jàmm ci gën ñu ngi koy nuy a pacha di pachas di ko ziyaar mhm. di ko ndokkeel ci leetul qadri bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal mhm. dëkkoon da jàmm ci gën moom ak ay journaliste am ak ay tec technicien am ak ay animateurs yi jàmm rek jàmm rek ci gën ba techniciens yi ak seeni bouton yi ñoo dëkk kon nag jàmm moo war a dox seen diggante su boobaa foo wuyu foo woo sa sa bouton rek mu wuyu la même chauffeur bi ak hmm. volant ay dëkkandoo lañ kon nag jàmm rek ci gën foo xool rek mën nga natt dëkkandoo jàmm ci gën alhamdulilah rabbil alamin weeru koor gi nekkoon na gan hmm. ñëw ci ñun mu dëkk ak ñun léegi nag mu ngi waaj a dem est-ce que dëkkan nañu ak moom mm-hmm. ci jàmm ak salaam dëkk ak wéeru koor gi ci jàmm ak salaam mooy li mu bëgg ndax mm-hmm. defal nañu ko ko ndax teral nañu ko <laughs> ndax teraanga bi moom wéeru koor bi yëg na ko mm-hmm. kenn ku ne wan nga xoolaat sa bopp sa diggante ak sa boroom nga wéet nga seetaat sa bopp ci weeru koor gi bi mu tàmbali bu tëy est-ce que téye naa sama lammiñ ci wax lu ñaw est-ce que téye naa sama bët ci xool lu ñaaw est-ce que téye naa sama nopp ci déglu lu ñaw est-ce que téye naa sama lox ci du def lu ñaaw est-ce que téye naa sama tànk dox fu ñaaw ak lu ñaaw est-ce que téye naa sama biir dugal ko foofu dugal foofu lu xaraam est-ce que cër yi li mu waroon sawar ci jaamu yàlla est-ce maa ngi jaamu yàlla comme ni mu waree est-ce que alquran bi nga xam ne moom la ñu war a jàng bu baax a baax a baax avant koor rawatina biir koor est-ce que jàng na alquran ci biir koor wéeru koor gi est-ce que salaatu ala nabi bari na ce que istighfar bi bari na est-ce que laa ilaha illa bax bari na est-ce que tabe gi bari na wa kaan rasulullah sallallahu alayhi wa moo gënoon tabe ñëpp wante li mu gënoon tabe ci biiru wéeru ce que joxe na ngir jëmm yàlla ci wéeru koor gi est-ce que leel naa miskin est-ce que est-ce que est-ce que yooyu nga def question réponse question réponse est-ce que waaraatekat yi wax naa ngir jëmme yalla est-ce que waxna li lii jëriñe est-ce que togna ci sama waaraate bi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que lepp li nga xam ne def nga question hmm. amuloko réponse nga xam fofu fay la koor gi jëppi la fofu ndax gan day gis ci njaatigam ab dara du ko wax ndax gan la mais dafa mm-hmm. lay jëppi kon nag dangay laaj sa bopp mm-hmm. est sama gan bi nga xam ne moo nekkoon fii ñëw ak ñëwe ci man mm, ma dëkk ak moom fan est-ce que jëppiwu ma kooku nag kenn ku yaa war a lamb sa bopp mm-hmm. ndax bis dana ñëw yow rekk ak sa bàmmeel bis dana ñëw يوريك اكثر بورو لا تزر وازر من وسر اخرى سيرين دوكو منال فوفو نيت باي دوكو منال فوفو نيت ياي دوكو منال فوفو نيت خريب دوكو منال فوفو نيت يو ياي ليغال سبب آه. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد كون نكني كوني اك ديمانسيون سوسيال فو تولو ci kaw ba ci suuf war nga seetaat sa bopp def question réponse question réponse question réponse so question yëpp jubee am nga leen réponse léegi nag nga xoolaat sa bopp ndax riyaa u dugg ci mooy ngistal ci sama jàmm yàlla ndax ngistal dugg ci ci sama joxin ndax ngistal dugg ci ci sama waxin xool ngistal xool ngistal xool ngistal xool ngistal foo fu ngistal dugg rek foofu yàqu na foo ngi ngistal dugg rek foofu yàqu na léegi nag est-ce que def naa ixlaas mooy sellal na est-ce que déggu naa ci li ma def léegi nag kenn ku ne nga def question réponse question réponse imaam bi na ko def jàngalekat bi la ko def mooy ustaad bi taalibe bi maamum bi waaraatekat bi kii wax ci rajo bi kii am émission bi kenn ku ne kii liggéey ci bureau yi kenn ku ne li nga doon def ci biiru woor ki wéeru koor gi dangay defaat question réponse question réponse boo ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ci ci ci société wala liggéey ci nguur gi contrat bi nga xam ne moom laa signé ma teg ko ci sama kanam est-ce que dañu ma waxoon ne naa xëy ci heure est-ce que damay xëy est-ce que dañu ma waxoon naa def lii est-ce que naa ko naa bàyyi lii est-ce que bàyyi naa ko loolu yëpp nga def question réponse question réponse su fekkente ne amal nga lépp réponse nga seetaat léegi li ma def ndax amul ngistal commerçant bi def noonu kenn ku ne lef li nga am noo ko amee bi nga ko amee foo ko duggale fi nga ko duggale ndax jaar na yoon mooy yoonu yàlla wala jaar na ci safaan yoonu safaan ndax bi ma defee am naa ci am naa ci euh, ngistal wala def ma ci ngistal mhm. question réponse yooyu koor gi sa boobaa mu xool ñu xool ko. Mhm. suy def au revoir mu yóbbaale ak sunu ngërëmal. soo boobaa ñu amaale ngërëmal yàlla parce que moom day rendre compte. day rendre compte. tey tey jii alhamdulilahi rabbil alamina def na ñaar fukki fan mooy fukki fan. Mhm. yërmande. Mhm. boobu jàll yal nañu yàlla yërëm. amiin bi def nañ fukki fan. Euh, njëggal yal na yàlla jëggal suñu bakkaar. léegi nag des na fukki fan. góoral ci safara. alhamdulilah yàlla nu yàlla mottal yëpp boo ñu gore ci safara te yàlla may ñu fekkee déwén ak déwén yu bare bare ñu ànd ak wér la leeltu qadr bii di ñëw tamit yàlla nu yàlla may ñu joxee ko comme nu mu waree ñu jaamu suñu borom subhaanahu wa taala sayyidatna Aïcha radiallahu taala anha nag laa jonn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leeltu qadr su ñëwee lan laay def ban ñaan laay def mu ne ko neel allahumma mhm. innaka afuwun mhm. karimun mhm. tuhibbul afwa faafu anni euh, am na ñoo xam dañuy wax ne allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni afuwun karimun ak afuwun ñaar yëpp benn la yow ko mën a firi ci sa wolofal <laughs> ñi gën a koo dégg euh, so loolu demee nag ñu dem julli ko julli iid julli mooy feeñal mbégte mais nag feeñal mbégte gi soo ko xoolee mbégte bii nu mu rëy rëy dafa nga ci war a xam lenn comme ni ngay wax toujours soo waxee ne ne euh, am naa ñaar fukki at déedéet waroo wax ne am naa ñaar fukki at da wax ne war a ñàkk naa ñaar fukki nga war a xool ngëneel bi xéewal bi jàmm ji sutura bi teraanga bi bi nekk ci weeru koor hmm. est-ce que beneen weeru koor dina ma fi fekk léegi nag nga gën a defaraat sa bopp hmm. defaraat sa toogin xoolaat fan ngay jaar parce que hmm. ci tuuboon nga ci wéeru koor gi parce que da nga wax ne ne euh, euh, fukki fan yu mujj fukki fan yërmaande yàlla la hmm. parce que yàlla yërëm na la dugg nga ci wéeru koor fukki fan yi ci topp mooy fukki fan njëggal hmm. kon ku lay jëggal lan ngay def da ngay tuub d'abord baalu àq boobaa mu jëggal la mais nit du la jëggal rek wal waxoo baal ma <laughs> kon nag da nga wax wax nga ne leen jéggal mhm. mooy tuub mhm. tuub nag mooy rëccu yi nga daan def su fekkee yaa ngi doon wax lu ñaaw nga rëccu mhm. dootoo waxati su fekkee yaa ngi xool lu ñaaw nga rëccu dootoo waxati su fekkee yaa ngi def lu ñaaw nga rëccu nga dootoo def so sa lépp li nga xam ne ne amoon na fay nga rëccu nga bañ ko ci jaaraat pour yàlla jàppale la ba déwén su koor gi ñëwee tamit mu ne ah wax dëgg yàlla daaw am na ay manquement yi ma fekkoon fi mais ren macha allah. lépp jaandoon soo fekkente ne yàlla dogal na fekk uh, koor bi ñëw na fekk woo fekk wu la fi su boobaa nga yóbbaale yóbbaale ngërëmal yàlla bi nga xam ne moom nga amoon. Mm-hmm. kon nag Imam Moussa. Mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla nu yàlla may fekkee déwén ak déwén yu bëree bëri. amiin bi jeex après encore ñu bañ a fàtte muddum koor. muddum mm-hmm. koor tamit nu génnee ko. Uh, incha allah mu ngi daw ci réseaux sociaux yi naka la koy génnee ñu wax ci rajo yi. na nga génne muddum koor mhm. avant iid bi ñëw at avant nga dem ci jàkk julli jàkk ji ah. ah. su yàlla dogalee tamit mhm. ah adduna bi moom tey nu mu demee ni mhm. euh, yàlla dogal na nu mun a am yaatu gouvernement bi oyofal pour ñu dem ci jumaa yi ak jàkka yi ab ak maas ñu dem foofu ñu xam ne ne qul lan yusibanaa illaa ma kataba allaahu lana mun na am sax ñu dem foofu yàlla jéggal nu dindil ñu fi mbas mi comme ni ñu ko tubaab waxee ñu yaatal kenn ku ne dem julli fi nga daan julle ñaan suñu borom yàlla teggal ñu fi tiis bi ak jàngoro bi alhamdulilah su fekkente ne toujours mesure bi mu ngi fi am na ñi nga xam ne dañoo wax ne soo mënulee dem iid mën nga ci sa biir kër ci sa biir néeg yow ak sa njaboot wala yow kese mais nag du am xutba waaw xóot ba discours la pour mboolo mhm. fii nag yow kese la am loo mboolo kon nag euh, da nga mën a def ñaari raka mhm. bi nga xam ne su fekkente dem na ba naafila bi naafila bi dagan mhm. mooy sa demee ba jant bi fenk ba mu set carrément euh, su boobaa nga julli foofu sa ñaari raka mu wuutu la mu wuutu julli iid bi kon yàlla nu yàlla yombalal lépp ñu ngi wax nag korona mhm. yàlla na ko fi yàlla jëlee corona euh, damay wax keroog ko ma ne corona mm. demal balaa sa sutura xaw beeku <laughs> ndax su demee bu yàgg rek dañu lay miin suñu la miinee ñu yeb la suñu la yebee sa xut sutura xaw beeku <laughs> kon nag dem balaa ñu miin ko ko miinee ñu yeb ko kon nag na dem balaa mu am daraja waaw léegi nag na dem ndànk ndànk dem yoonam dëgg yàlla bi tamit na indiwaat ndànk ndànk euh, doxalin yi mhm. demin yi ndànk ndànk ndax corona bi alhamdulilah rabbil alamin lu ñu ci doon ragal yëpp yàlla ak mbaaxam suturaal nañu kon nag dañoo war a delloo yàlla njukkal subhanahu wa taala dañu doon wax ne ne ay million million mooy faatu ci Afrique alhamdulilah rabbil alamin léegi ñu am ñetti weer mhm. amul même junni ki junni ñi faatu ci Afrique kon nag sant yàlla nañu delloo yàlla njukkal yàlla beral nu loxo nun tam na ñu beral suñu bopp loxo mhm. c'est-à-dire état yi dañu beral suñu loxo mhm. c'est-à-dire ñu oyofal mbir mi c'est normal nag mhm. mbir moo musul dégg loo musul gis soo ñëwee dangay ngay jaaxle su boobaa panique ay am loolu moo tax ñu jël mesure yu sévère depuis le début mais maintenant moom comme gis na li ñu gis xam nañu lu ñu xam mhm. ñu xam ne incha allah oyof bi war na oyof su oyof bi oyofee su boobaa mu mu dem a dem jaar yoon incha allah kon nag nañu oyofal mbir mi mhm. ñu bokk ci sant yàlla mhm. euh, li nga xam ne uh-huh. li nga xam ne ñu ngi koy wax ne ne euh, tubaab yi ñu ngi ci fexeel ci vaccin yee ak lu dul vaccin ñoom tamit ñu am matukaay lu ñuy dugal ci seeni njaboot ñu xam lan la surtout boobu waaw parce que tey tey ji ñu ngi wax ne kenn ku ne di wax dëgg la yàlla xam du dëgg yàllaa xam mais nag balaa ñu engagé indi vaccin di yàq seen i der hmm. ndax tey tey ji suñu indee vaccin rek seen der yàqu na parce que dañuy wax ne ne complice lañu <laughs> ah, suñu indee vaccin rek ñu ne complice lañu ci ñi nga xam ne dañoo bëgg a faagaagal Afrique kon nag nañu wut beneen pexe bi nga xam ne du vaccin ndax tey tey jii koo ñu vacciné su boppam métti rek mu ne waaw président moom mu faat wala ministre bi moom ma rey wala docteur bi moom mu rey ndax waxoon nañu dañuy faagaagal nit ñi jaarale ko ci vaccin loolu la wax allahu alam kon nag balaa ñu dugg ci vaccin mhm. nañu teey mhm. nañu bàyyi mbir mi dem naturellement mhm. su fekkente ne ne dara lalul ci gannaaw su fekkee dara lal na ci gannaaw nag wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu xayrul makirin ñu ngi lal seeni pexe wante yàlla mooy jubal pexe subhanahu soo yàlla jubalul pexe même soo joxee nit ki euh, poison yàlla dina ko sëpp def ko def ko remède def ko fajukaay mu wér mu dem yoonam kon nag wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayrul makirin nañu bañ a dugg ci tarxiisu piège iblis piège cheytaan piège noonu noonu nit wala noonu diin ñi nga xam ne dañoo wax ne ne nit yi bari na nañu leen di lañu leen di wàññi li gëna baax kay comme yow xam nga ne nit yi na nañ wañ nga sa <laughs> say ngeen ba su ngeen ba ngeen ñeneen mais nag keneen dee man ma parce que suñu nun duñu dund duñu neex tamit dund dund révolution culturelle révolution scientifique révolution économique révolution de tous côtés mo wara ñëw révolution nak du nek révolution dóoru kurfante wala déet déet dañu référé wu ci alquran deug la alquran traité na lépp ci walu diine ak ci walu aada so jele diine gi nga delu yóbbu ko ci aada bi rek mu jaar yoon deug la mo ne udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawidati al xasana révolution bi na am ndak chazes andak wax ju neex andak wax ju rafet mais nga xam fi nga tek sa tànk xale yi nga xam ne macha allah fii ba ci kanam tuuti dañu leen di war a invité. Mhm. am innovation président sax wax na ko keroog. Mhm. mooy ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi def yenn mbir bi nga xam ne ne ñoom ñoo ko xalaat. Mhm. ko pour euh, comme lu mel noo jël euh, xam xaw ma naka la demee mais euh, am na ay xel xale yi nga xam dañoo def innovation. am na ñu ngi doon def innovation. ñooñu la war a dooleel. chinois yi amul dara lu mu xam lu dul jëfandikoo xelam. ba génne lu bari. européen yi amul lu mu def lu dul jëfandikoo xelam génne lu bari. américain bi amul lu mu def lu dul génne jëfandikoo xelam am génne lu bari ñun tamit su fekkente ne am nañu ay jeunes ñi nga xam ne dañoo jëfandikoo seeni xel ñu yaatal ko ñu ñu ñu ñu def lu bari nañu ko yaatal ñëpp jot ci. mais tubaab nag benn nu mu ba doyewaare yëpp. seeni mbir seeni biir dañoo laawante biir mhm. soo xamee fii dara liy jëriñe danga ko koy exploité nga dem bind ko ba fii laa yem mhm. te ñu tas ko ñëpp jot ci mhm. su fekkente ne keneen su ñëwee sut la xam-xam moom tamit tàmbali foofu dem ci kanam mu ne man tamit fii laa yem noonu la ñu développé wu mais nun nag dangay am xam-xam eñaane ko sax wax ko sa doom wala eñaane ko sax wax ko sa xarit soo deewee xam-xam dee na léegi nag dañoo war a yaatal xam-xam yooyu soo gis ñu def université def filière yu bëri pour ñu am ñu am dara. Hmm? mais dañoo jàng depuis plus de cinquante ans même pour sax mu ñu ko defar. loolu gàcce la ci ñu gàcce pour tout l'Afrique nga jàngalu tolloog juróom fukki at ñu ngi lay jàngal hmm. nii la war a defee nii la ñu war a defee lii la war a defee yow si xam-xam si wax lakk bi rek nga yem war nga seetaat si bopp nga def beneen jéego. mënoon na tey tey jii ñu mën a defar avion comme Iran Iran macha allah defar na mboolem ñu tubaab yi defar moom defar nañu mel noonu ñun tamit am nañu xam-xamam am nañu ay nitam nañu leen jox moyen jox leen ay béréb yi nga xam ne moom la ñuy gëstu suñu gëstoo dem réew mi dem def def lu bari Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop wax na yu bari ci mel nii c'est très important jooy na ko ba dem nag. waaw waaw léegi nag. alhamdulilah rabbil alamin suñu président macha allah am na xel am na xam-xam xale la. na encouragé borom xam-xam yi. encouragé xale yi ci soobu ci xam-xam. man li nga xam ne ne moom la ñuy lu ma métti. mooy dañoo privilégié foo mi. sagganee xam-xam bi. tey tey ji même visa yi soo nekkee artiste. automatiquement ñu jox la visa. mais soo fa bëggee jàng. kaayit bu dul gi ndaw yi laaj la ko kon président de la république ñu ngi ko ci sant ci mesures yu mu jël mhm. ak doxalinam ak jëfinam macha allah man de sama côté du ma politicien musuma ko gis mhm. lu dul lekk ci mbooloo mun naa am nuyu nanu ñaari yoon peut-être wala ñetti yoon mhm. dañoo daje ci mbooloo nu muy rombo nuyu nit ñi mu nuyu nit ñoon même sax damay man damay rekkile reculer du ma dugg duma ko jege sax xaw ma ko mën a nekk nag moom xam na ñëpp. parce que am na ay renseignements wante li mu def neex na ma. lu mu nu muy def doxalee tamit neex na ma sama côté bopp. politiciens yi tamit macha allah nu ñu doxalee ci mbir mi tamit. neex na. lu boobu lancer la ñu war a def dem boo gën a réew mi ci wàllu xam-xam bi leen yàlla dénk ñu gën ko koo valoriser. ñu mën a defar suñu mbiru bopp. ba njëkk bi dañu doon defar vélo. Ah, dañu doon defar war nañu defar moto. war nañu defar oto war nañu defar war nañu defar alhamdulilahi rabbil alamin pharmacie yi tamit ñu ngi góorgóorlu ñoom ñu ngi defar mais suñu garabu bopp bi nga xam ne moo nekkoon fii nañu gëstuwaat ñu jël garab yooyu ñu ñu matérialiser ko parce que ñu mag ñi seeni garab yëpp macha allah man mosoon naa bind livre hmm. ci pulaar hmm. xool na nduu morta den ci cellal naka la ñuy saxee ci wér depuis ci bopp ba ci tànk Mm-hmm. yépp ay gorob wolof la amul li ngay bind amul fas amul jat da ngay jël bii garab jël bi garab boole leen mu faj nangam jël bi garab jël bi garab mu boole ma yóbbu ko ci benn bërëb pour ñu muunal ma ko ñu ne réer na depuis boobu man tamit ma tayalaat bindaat <laughs> kon nañu góorlu boobu nag ku tudd buddusu médecin macha allah mu ngi ci liggéey liggéey bu am solo. barke démb rek soxna ñuma ma invité na fi benn xalé bu jigéen bu tuddu Umu Dieng foofu lay liggéey mom xamna ci xam-xam yu bari hmm. kon nak yoy la ñu war euh, favoriser bo ñu génn ci dara suñu testee baax na xëy su baaxul ñu sanni suñu testee baax na su baaxul ñu sanni hmm. su boobaa ñu nekk autonome sur tous les plans do mëna a nekk autonome 100% mais nak da nga mëna a fa am foo toogee waaw fo toogee kon nag euh, Imam Moussa vraiment maa ngi lay sant di la gërëm ci sa émission bi nga xam ne ne moom mooy ndeyu émission bi dëkkandoo jàmm ci gën daal mu ngi ci fépp foo xool rek da ngay gis dëkkandoo léegi nag dëkkandoo jàmm ci gën kon nag Samba si su la neexee mën nga ubbi sa téléphone <laughs> ah, jërëjëf Thierno ndimbal bi nga xam ne nag moom la ñuy dimbalee daara yi mhm. ci lu état bii di wax yow gisoo yow amoo man gisuma aw ma mun naa am nag dañoo wax ne ñun mun na lan suñu bopp allahu akbar yàlla ne ko yàlla jëmale këram te yàlla nu <laughs> yor yàlla nu yor wallaahi yàlla nu yor yàlla nu yor yàlla nu yor barakallah insha allah wallaahi wallaahi alhamdulilah jërëjëf imam Hadji Thierno Bane ñu ngi ñuy signalé ni waxtu ba yem na ca alhamdulilah waaye yow it ñu wax la ne jazakumullahu na xayran waaye bu rafet na yal na la yàlla moo mottalil sa yéene fii ñu fekk lépp tàmbalee ko fii nag ba kër yàlla subhanahu wa taala yàlla ko yàlla defal jazakumullahu xayran kon nag ñu tàggoo tàggoo bu dul tàggoo incha allah ba dellu si waat ak jàmm jëf